mi ngi noonu asma ñetti poñ yooyu bu ñu ko boolee moom mooy nekk chronique économie bu tey bi fi ñu ko dooree mooy euh, fa nga yëkkatee rek. muy suñu mbokk malien yi nga xamante ne ay sanction ginnaaw nag bi mu dalee seen ndodd ba léegi nekkul ni ñoom yi rek ñoo ko yëg ndaxte euh, kenn umpalewul ni dem bee dikk bi si diggante réew bu Sénégal ak Mali jëm ci wàllum jokkalante wàllum commerce dafa bëri lool tey jii nag transporteur yi lee nekk file ci Sénégal ñoom ñoo ko yëg doon nag becc seen ay jàmbat ci micro Euh, Pierre Pouy ak itam caméraman bay taal mën nañ dem xool ñoom lan moo leen naqari desiwaat léegi léegi sur le plateau maam Sidi bu baaxee ñu dem ñëwaat léegi léegi. li bi ak euh, gi ñu tëj frontières yi daanaka lu métti la ci dawalkatu camion yi ñoom nag lu ñuy ñàkk mënuñu kaa xayma. munoo dem Burkina Faso jaaroo Mali moo dem Niger jaaroo Mali moo dem Togo jaaroo Mali moo dem Nigéria jaaroo Mali tey yi ma wax ñun ñëpp dem nañ fa te mënoo cee fël fenn te demoo Mali kon nañ seq ak ñoom jàmm nañ ñu gënal CEDEAO. ñëw bi frontières yi daal ñëw bi yi ñëpp dem dawal ñëpp dem liggéeyi. loolu mooy li gën mais tey jii topp CEDEAO ba teg teg sa population loo xam ni day metti torop tey jii ñëpp a sonn transporteur sonn na chauffeur sonn na jaaykat fee sonn nañ affaire yi metti na malien tamit affaire yi metti nañ ci ñoom ñu leen di masaw bu baax a baax dawalkatu camion yooyu lee ragal daal li ñu sekk ak Mali am ay ñagas-ñagas ba ñu ñàkk ko tey ji Macky Sall daa waroon nangu CEDEAO mere ko population kontaan ci moom ni mu koy nangoo mooy tey jii mu bàyyi lépp loo xam ni maanaam CEDEAO digal na ko mu tege ko nële xool li nga xam ni population moom la bëgg mu jël ko dox loolu loolu su ko defee tey jii nii population dinañ bëgg ci moom lool donte CEDEAO dañ koy mere. ñoom nag ñuy ñaan ñu indi saafara ci nu ma gën a gaawee ndaxte daal koomum Sénégal moo koy yëg bu baax. Aïcha mi ngi noonu Binta Ba les Sénégalais se wax na dëgg nag. Mali dafa nekk point de stop boo xamante ni boo fa jaarul mënoo dem ci yeneen pays de la sous-région yi nga xamante ni moom la fi cité alors quelque part est-ce que la CEDEAO devrait être aussi stricte vis-à-vis de cela mi ngi noonu de bu méttee ci maliens yi tamit euh, épargne wul li nga xamante ne moo di secteur économique bu Sénégal ndax kenn umpalewul ni xëy na manne financière bi ñuy perte jamono ji bëri na torop asmaan nag dañuy gis euh, crise politique wala tension politique ay conséquences économiques lay engendrer ndax yàggul dara gisoon nañ fi suñu diggante ak Alpha Condé itam bi nga xamante ne tëjoon nañ frontière ñu ci bëri amoon nañ ay tolof tolof encore une fois mu nekk ay décision yoo xamante ne jël na ko mais Mali bëgg contourner ndaxte am na suñu ay confrères yoo xamante ne ñu ngi ñuy xamal ni sax euh, jamono ji ñoom ñu ngay dem di def euh, nuñ ko euh, mën a woowee xaw bu fekkoon justice rabat d'arrêt lañ koy wax mm-hmm. waaye xëy na rabat économique parce que ñu ngay dem fële ca port bu Nouakchott di fa di ko utiliser donc li à long terme mën na am ay jeexital yoo xamante ne Sénégal du ko foog encore une fois je pense que sujet la bu ñu war a pencher wu ut ci ay solution ci nu mu gën a gaawee européenne, Macky Sall, euh, puisse prendre une décision de convaincre justement l'Union européenne à ne pas donner autant de sanctions exécutées par la CEDEAO. Parce que quelque part, c'est le Sénégal qui perd. Hein. Mhm. Et euh, comme, comme, comme, comme li nga wax rek, euh, je pense que le le le le président en exercice de l'Union africaine. Mm-hmm. je pense que lii mooy Mm-hmm. def de telle sorte que euh, tey jii de minimiser li nga xamante ne mooy les conséquences. Mm-hmm. parce que tam bu dee euh, yow li ngay liggéey dafa dépendre ci loolu tey jii da ngay yow yaay gën a sonn sax parce que après ñaxtu bi bi day bëri euh, doo mën a faj lépp donc déjà rek nit ñi seen liggéey metti na donc je pense que le premier rôle c'est de faire de tell sorte que nit ñi mën a continuer li nga xamante ne mooy seen liggéey te te nekk seen seen seen gagne-pain c'est difficile nag mais il faut revoir les sanctions quand voilà justement les sanctions peut-être euh, kenn euh, d'accordul ci coup d'état am mm -hmm. mais c'est pas pour autant qu'on doit faire euh, stagner une économie rampante quelque part le Sénégal est en voie de développement et, et tout son développement euh, euh portière de day dafay jëriñ kii di nga xam ki nga xamante ne moom moo di Mali lépp lu Mali di importer ki exporter fii la koy jaarale waaye kay kay kan moo lekk Mali bi ñu mi ngi noonu asma. <laughs> kon ñun la ñu puni kon. keroog rek astar mi naan cu cuub yi est-ce que dina ñëw ci moment des fêtes donc autant de questions yoo xamante ne nit ñi ñu ngi koy posé wu suñu ay euh, échange dafa bëri lool ba tax na tey ji jur na jiixi jaaxa je pense que itam bu euh, crise politique amee te kenn xamul fu muy yem aussi war nañu xool côté économie nan la ñuy def parce que dañu jógee ci pandémie boo xamante ne économie yëpp fi mu ne nii dañoo nërmeelu ñu dolliwaat tey nekkul yàlla moo ko indi mais nit ñi ñoo ko bëgg indi encore une fois di mën a lor ay famille menacer ay liggéey yu baree bari ndax ñii ku leen asma nga xam ne sonn nañ te amuñu ci benn pexe lu dul di xaar nguur yi encore une fois ñoom ñoo ciy mën a àddu ngir mën a décanter la situation. très bien ñu àddu ci la guerre en Ukraine la situation des étudiants quelque part euh, dafa xaw doy war foofu dégg na alors quelles sont les conséquences ci guerre boobu noonu. mi ngi noonu Asma xam nga nag jamono ji fi mu tollu lépp lu xew euh, feneen rek dafay am ay répercussions ci yeneen dëkk yi li koy gën a illustré mooy pandémie bi euh, cas coronavirus bu mu amee ci Chine ñëw na ba lëjal ñu sonal ñu encore une fois guerre bi nga xamante ne moo am Ukraine nag dina am ay jeexital ci wàllum koom-koom bu fekkee dafa durer à long terme ndaxte nag ba mu dooree rek dañu gis li nga xamante ne mooy prix baril pétrole yi ñu gaaw yokk te li nga xamante ne mooy blé maanaam li ñuy jëfandikoo ngir mën ci am mburu dañ ci am taxawaay bu ama am solo bu weesoo loolu itam gaz bu bëri bu Europe di jëfandikoo ci Russie lay jóge tey jii nag dañ ciy ànd ak expert di wuyoo ci turu may sa baabu moom moo ñuy jàngatal yooyu lee euh, conséquence bu paree maam Sidi Diop tonton Bakary ñu dem jëli Maysa Babu desiwaat léegi léegi. lii xew de muy guerre Ukraine bi ak euh, Russie euh, xel teyoon na ci lool ca commencement ba ndax. dañoo gisoon ne euh, pétrole bi xam nga dafa xawoon yéeg sax avant guerre bi da commencé ak bële beeg yooyu ba xam ne mburu Sénégal beeg lépp ak dafa commencé woon jóg léegi nag ba mu xewee ñu ne euh, parce que ñoom ñoom ñaar ñooñ di xeex sooy xool lu dem ci mburu bële bi ñoom ñoo ko yoree euh, te it nag pétrole ak gaz dañ cee yor lu bare bare bare ba nga xam ne premier jour ba rek ku maanaam njëg yi dañoo jógoon njëgu pétrole ba ak bële ba ak lépp mais ñu teg ci ñaari fan ñu gis ne li tubaab yi di xeexak ak waa ji euh, di ko teg ay daan lu ne moom tontuwul te tontuwul ci pétrole bi tontuwul ci ble bi tontuwul daal ci li nga xam ne ñun dañ cee tiitoon léegi nag ndax tontu bi euh, daa foroxagul xaw ma ñu koy waxee mais fi ne comme que tontoogul àddina bi mi ngi na tekk di ko déglu te am nañ yaakaar ne xëy na xëy na du laal loolu pour gaañ àddina ndax loolu àddina taxu koo jóg la ko jox tax a jóg ab dëkk rek la euh, ñu am nañ yaakaar ne xëy na du ko laal wante su ko laalee rek day day metti ci ñëpp daal. Aïcha mi ngi noonu kenn duna table ay waxam de ndax ci xam-xam la ko teg ak ci expertise c'est important. asma xam nga ñun nag suba teel à chaque fois dañuy dem di wëri les experts ngir apporter de la valeur à li ñuy wax mi ngi noonu moom nag loolu la jàpp waaye démb ñu ngi jokkook moom démb ci suba ci nouvelle yi ñu mujjee jot nag Vladimir Poutine dafa jël décision nationaliser bépp entreprise bi nga xamante ne mi ngi nekk fële ca Russie loolu nag mu ngi ko def en représailles ci sanctions économiques yi nga xamante ne tegoon nañ ko ci ndoddam en attendant ñuy xaar xëy na yeneen sanction wala yeneen décision dina bés yi nga xamante ne moom la ñu dënmal asma bu weesoo loolu dafa am benn tur boo xamante ne bi euh, guerre bi commencé ba léegi dañu koy wax muy noor Streaming de lan mooy Nord Streaming de mu nekk benn gazoduc boo xamante ne dafa jóge fële ca Russie di yóbbu gaz fële ca Allemagne tey jii ñu suspendre ko ñu bëgg a xam nag lan mooy gazoduc boobu bu élément bi yembee maam si Sidi tonton Bakary ñu dem jëli noor Streaming de gën ko xamle ak téléspectateurs yi très baax a baax ci boobule élément euh, Binta Ba xam naa ni bés bu yembee rek mam si di jox ñu ko mais ñu bàyyi la nga firil ñu lan mooy euh, fermeture du stream Nord 2. mi ngi noonu Asma comme niñ ko doon waxee rek ci kaawu Mali bi dafa am nag ay crise politique yoo xamante ne conséquences économiques yi dafay bëri dafa am benn gazo gazoduc nag mooy loo xamante ne souterrain la ay tuyau la yu yóbbu gaz mu waroon jóge Russie dem ci Europe plus précisément ca Allemagne moom nag mi ngi long kilomètres waaye itam juróon ay coow lu bëri tey jii bi nga xamante ne coow bi am na dañ ko nag daal di suspendre parce que pare woon na waaye nee nañ sax moom jotul sax fonctionner nee nañ kenn du ko mettre en service avant loolu nag amoon na lu ñuy tuddee Nord Stream 1 moom moo doon acheminer li nga xamante ne mooy gaz russe fële ca Allemagne boobu moo continuer ba tey di alimenter li nga xamante ne moo di Allemagne ndaxte ñu ngi jot ci ay nouvelle ni ba léegi Norvège di alimenter am na beneen dëkk bu leen di euh, jox li nga xamante ne moo di gaz asma li ñuy ragal mooy Russie dagg robinet bi bu ko defee Allemagne du jotati gaz parce que 60 pour cent li muy utiliser ci gaz nag mu ngi koy euh, jëlee fële ca yi te tey jii ñu ngi xalaat sax bay tudd benn dëkku Afrique bu ci mel ni Algérie naan bu xëy na bu gaz manqué Europe moom dina bokk ci ñi nga xamante ne dina leen alimenter encore une fois. bu Russie yi daggee robine bi daal dina métti ci Allemagne bu baax a baax États-Unis nag dafa mel dañ ci am seen avantage ndax am na benn gaz boo xamante ne GN GNL lañ ko tuddee récemment lañ ko mettre en place ñoom namm nañ di ko jaay ñi nga xamante ne moo di euh, les Allemands si fois Russie yu dagg na li nga xamante ne moo di gaz. alors est-ce que la Russie tenterait de devenir une une puissance. ah une première puissance peut-être lii nii muy teg nii maman boo demee ba ci ah. biir dafay mel ni loolu la bëgg a incarner alors est-ce que oui il en a le plein droit ndax su ma moom yi sama yëf ku ma neex laa koy jaay yaay booy tamit mhm. waa ñi ko am nañ ci jéem a góorgóorlu exploité ko teg ko ci yoon ndax bu jëriñu dara ndax mu mën a nekk sax suñu suñu élan bu bu développement ci sur le plan économique ci wàllu gaz mhm. comme am nañ ko war nañ toppatoo exploitation bi pour ñun tam ñu mën cee def est-ce que tamit tubaab bi foofu noonu du ñëw moom moom ñu moom ñu moomaat ñu sax lay wax ndax yàgg nañoo moom moo moomaat ñu. ah, ah. bu dee dañ ko nangul depuis boobu ba léegi donc bu ñëwaatee dañ koy gën a nangul c'est domage te comme toute une question de politique bu ñu seetaanee vraiment Russie repliée sur euh, elle-même. Mm-hmm. te surtout que njëriñ bu mu leen amal dafa bëri. Mm-hmm. njëriñ bu mu leen amal dafa bëri te tamit quoi qu'on dise le combat il est. quelquefois boo ko xoolee ba ci biir légitime parce que tu protèges tes intérêts. c'est justifié et justifiable. alors quelque part maintenant le danger ce serait que les pays qui ne se se rallient ou qui ne s'allient pas à la Russie quelque part demain sont vulnérables face à l'Union européenne qui va revenir en grande pompe vu que mënul am gaz fële pétrole fële day ñëw en grande pompe courir vers les pays en voie d'exploitation comme le Sénégal et malheureusement après dañuy comme tubaab njug njàngu xel la xam. jub na ci jukkoon def de waaye xelam. jub la rek pare ba xam de. Eh? Mm-hmm. si il a planifié son plan il a il a tout préparé. Paa moo yee ji ñuy wuti il est mm-hmm. fin prêt du dellu ginnaaw ba pare menacé. daa am objectif kay. kenn dugg ku nekk na nga yem sa Aïcha mais il paraîtrait-il que il y a des étudiants sénégalais euh, Bintaba mhm. yu nekk fële ca Ukraine ñoo mhm. xamante ni ils se ils se en danger alors suñu doomu réew nag fu ñu nekk bu fekkee ni dañ fa nar am problème il est très normal que le président Macky Sall euh, se euh, s'exprime sur le cas alors euh, ki ñu koy xamal moom moo di Adama Sow mi ngi wax ni euh, guerre en Ukraine une trentaine de Sénégalais ont atteint la Pologne finalement xëy na dañoo ragal. ñu ñu ñu ñun raw gàtt ñu rëcc mais boo leen bëggee jëli fooy am. mais mais noonu nag bu ñu yeggee Pologne nañ leen jëli waaw bu ñu yeggee Pologne ñi rëcc mais am na ñoo xam ñu ngi ci biir. parce que léegi moyen de transport yi daan yóbbu amatul y' plus d' essence. loolu mais mais ñoom sax déjà ñu ngi wax li nga xamante ne mooy racisme nee nañ bu ñëwee ba nar a dugg dañ naan leen bu nalee pas entrer parce que vous êtes noir je pense que question boobu démb bu ma juumul dégg naa Boubacar di ci wax mm-hmm. war nañu ut ay mécanisme yoo xamante ne ku ci nekk di nga mën a rapatrier ay nit mais comme ni ko maman waxee rek xam nga bu fekkee ni yëpp yi dafa tas ku nekk yaa ngi xool nooy def ba survivre souvent doo am sax koo xamante ne moom ngay waxal président ba wàcc jël ay armam di xeex xam nga ni fi mu ne nii talul wax ak kenn donc mu nekk situation métti boo xamante ne mais quoi qu'il qu'il en soit même président en exercice de luya en l'occurrence Macky Sall war na ci dox ay jéego ba ñu xool nan lañ koy def sinon sax mu saisir directement Macron wala Union eh, européenne. Macron Macron kay Macron du laale mais mën na mën na mën na indi waxu indi jàmm Poutine kay lu muy bañ mooy ku ñëw dugg ci xeex gi waaye ku ci dugg nga xam ne nag borom doole xamul donc madame Diop Khadija dañu koy nuy dalal ko moom mooy feggoo ci rubrique femme action ak Maman moo di ganam tey noo def. maa ngi fi jàmm rek. ça va ça va alhamdulilah macha allah <laughs> macha allah. bismillah xam naa dañuy koy nuy dalal ko rek yaay booy. Ah, wëyal ak Poutine. waaw man dorénavant tous les matins je vais dire bonjour Poutine. <laughs> mais bonjour Poutine la Russie vous me voyez. est-ce que muy dégg turam te du xam li ngay wax du gën a garaaw. traduire da ngay traduire gis naa gars yi di def ay coupage. Uh-huh. traduction <laughs> ne me tuez pas. loolu rek la ñuy wax ah balaa ay dee di ñëw nga xam man ngay wax bu ma rey. dëgg la léegi ak ak ñoom ñàkk dañoo inspiré. dañoo inspiré Aïcha en tout cas mi ngi noonu mais maman je pense que oui il est vrai que la Russie est déjà une puissance mais quand je parle d'une puissance je d'une États-Unis ak Chine mm. di ko xëccoo on n'attendait pas de voir la Russie revenir en grande pompe ainsi mm-hmm. Poutine, il a l'air très déterminé. Alors, il, se, il serait peut-être temps des, euh, pour certains pays d'Afrique de rejoindre la Russie en collaboration. asma déjà les européens ñu ngi fustigé mutisme bi nga xamante ne moo am euh, ici en Afrique ñu ngi wax lu tax africains yi waxuñu si mais africains yi ñoo yey bañ ci wax déjà euh, situation bu complexe comme ni nga wax dañuy dem ci bipolarisation wala sax lu ko ëpp parce que tey ji bu fekkee Chine daf ci xaw a neutre parce que quoi qu'on puisse dire Poutine ak le président chinois ay xarit lañ ils sont ñoom ñaar moom ay gaayan keuse lañu lañ buñ ko mën a tuddee noonu te jii euh, am assemblée extraordinaire da ngay gis Chine xaw a rétracté wu euh, suñu mbokki Arabie Saoudite di xaw a rétracté wu loolu tam peut-être ay enjeu économique moo koy kii nga gis États-Unis nekk ak Europe te États-Unis fi mu ne nii autant kenn xamul dund na kenn xamul dee na ni Trump di waxee Biden da nga xaw a euh, da nga xaw a ñàkk fayda ngeen baal ma ci terme bu doon man la ba léegi kon jeex na mais États-Unis tamit doful parce que euh, côté arme nucléaire Poutine ni ma mama waxee il est bien préparé fi mu ne nii moom nañ ci topp rek rek di asma di man nekkoon président Macky Sall xam nga lan lay def. pour l'exploitation de mon pétrole et de mon gaz étant donné que il a l'expertise et la connaissance <laughs> en la matière yàgg na exploiter yàgg na jaay. Mhm. kooku moo ma mën a dimbali. waaye ki nga xamante ni moom day jënd mënumaa xettali. mais ki lay France day jënd. ki lay yéen jënd di dabare day ñëw day ñëw day ñëw nga def contrat mu ëppale la. waaw léegi nag man damay dem rallier Russie. dëgg la mais asma ki dëgg la même mise coloniser coloniser moom waxul ak moom du la bàyyi nga wax ak moom ñun loolu mooy suñu problème. waaw mais man foofu lay jaaree xam nga am nañ fi ambassade te keroog bi ñu demee ci ambassade du Russie di laaj dañuy naan ñoom le fait que peut-être qu'ils parlent anglais le plus souvent euh, mooy tax duñu xaw am le les bons collaborateurs mais foofu damay fàq dem jàngi di anglais ñoo mokkal ko di collaborer ak am na lu mu sax moom. ah président am lu mu <laughs> moo neexul a anglais sax ak foo koy léegi Poutine gis nga maman fii àdduna kenn jafewul boo jubee rek. koo koo fekk ñu ne kii dafa métti dafa fekk ni moom ay ay ay kàcc new ci ay wax bu ñuy raay raay nekku ci dëgg rek ak farlu. Poutine noonu lay def mais dëggul nga farlu ni moom bu ko def